Euh, fekk mu ngi ko bi di nelaw sa jaam yi dugg yuuxu tàcc rek mu tiit mu tiit rek bopp bi dagg a demee baax ay 9 ans 10 ans mu commencé daal loolu yëpp da koy sabab. da nga wax ju baax wala boog nga yore liir bu tooy nga ñëw di seetaan football toog nii rek lu tolloo vingt personnes ay xale yu góor ay waxambaane âgé de 30 ans 25 ans toog nga tuur sa doom seen biir xale yu jékki-jékki rek ñu dugal biiram ñëpp yu xondoo yee loolu day dagg bopp xale. moo tax xale yi crise bëri na trop léegi su ko defee bu demee ba commencé jàng cellule boobu nga xam ne moo fekkoon saa bu ko soxlaa rek mu daal di koy maas mu ni tip daal nga ne jinne moo ko tax mais jinne dëkk ci nit yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam moo koy sabab parce que aussi seetaan mën na ko jàpp maas ko bu ko maasee bàyyi ko rek c'est fini day continuer di daal moo tax ne léegi soo amee ku mel noonu léegi da koy faral di tal lem saa bu lekkee mu jël kuddu bu ndaw ba pare nga tere ko image bi télé yi ngay gis ne ak ak portable euh, kii casque téléphone yi yaa ngi dégg ba ca mooy suñuy tëgg ay tabala wala sagar sa ah, sabar yooyu yooyu da koy mooy pour bopp mën a tëgg su ko defee rek incha allah sëriñ bi day greffé wu ay deux trois mois rek nga daal di gis affaire bi arrêté loolu mooy tax mais nag tant que mi ngi def fu ñuy tëgg ay tëgg yu fooree bopp di yëngu ni léegi sëriñ bi day gën a sori su ko defee day dem ba daanu yi day jigéew loolu mais dina dëkk ci nit mais Iblis bi muy maam Adama waxuloon yàlla sa jaam bi dama koy dugg waxul loolu de daf ne damay taxaw ci kanam ci gannaaw ci ndajoor ak noonu la waxee waaw moo tax jinne bi muy dugg nit bëriwul quoi léegi nag jibarkat yi lañ ciy nax parce que fii xale yu bëri dañuy daanu comme yeneen dëkk yi loolu moo leen ëpp aussi ba ca def mooy xale yi dañu xaw a système bi fi mu nekk nii boo seetloo daanu yu métti yi di am école yi mais bu njëkk amul woon Senghor fii la jàngee ba nekk président Abdoulaye Wade fii la a ba nekk président Abdou Diouf fii la jàngee ba nekk yaa ngi dégg te mu mësul gis école yi nit ñi di daanu mais depuis que téléphone yi xewee yaa ngi dégg ak vidéo yi yaa ngi dégg ak téléphone yi ak euh, internet bi yaa ngi dégg ak euh, euh, télévision yi nga xam ne du fay guddi ak bëccëg sa doom bi bu wàccee école yow toogaan nga ci télé bi ñu rek ba minuit une heure deux heures du matin mu tëdd sa bi di manqué nelaw manqué nelaw manqué nelaw manqué nelaw day jékki bopp dal loolu yëpp nañ ci bàyyi xel su ko defee boo demee ci njabarkat bi rek mu naa ne junne maama ma ko topp ak junne Moussa ko topp ak junne Maymuna jox ma béy euh, bu xonq jox ma béy bu weex jox ma saabu tur cinquante mille ngeen di yàq seen xaalis dem rek a dee loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk képp liir bu ndaw bu fekkee ni match football dafa am wala lamb yaa ngi dégg bu bokk ci ñuy toog di seetaan wala sa doom na nga ko jël yóbbu ci biir parce que da ngay toog ni di seetaan ni rek ñëpp yuuxoo ko loolu xajul ci bopp boppam sax bu yuuxoo rek xale bi def nii rek boobu day dagg su ko defee mu commencé di jooy di jooy di jooy te mu commencé di say di say di say ñu naan junee ko topp junee ko topp fekk boobu dafa dagg léegi nag su demee ba am 10 ans yaa ngi dégg benn temps rek affaire bi commencé di ko sonal di ko sonal di ko sonal loolu moo tax léegi dëkk yu bëri xale yi di daanu loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk fii gis naa fay xale jigéen yu bëri yu daanu mais dina topp leen mais loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk dinañ bàyyi xel bu baax yooyu yëpp nag dafa bokk ci lu leen baax incha ngeen mooy ci jabarkat yi nga xam ne ay naxaatukat la mooy li nga xam ne moo ci nekk incha allah dina bu duggee ci nit 72 heures génnul rek nit ki day jël kooku amul benn wala ndax dina fasan la poison nga xam ne moo ci nekk incha allah daf koy courant rek mu dëkk ci mooy li nga xam ne nekk incha allah kon dama ko fàtte woon avant may ñëw mais maa ngi leen ko dolliwaat pour seen xel gën a dal ci loolu incha allah na nga ko utal lem saa bu lekkee nga a kudd bu ndaw ba pare nga tere ko image télé yi quoi bu xaw ci kattanu wala fu ñuy tëgg ay sabar yu mel noonu pour bopp mën a tëgg su ko a deux trois mois rek nga gis affaire bi di rafet surtout bu toll ci di màggal bi mais tant que moytuwul loolu tant que moytuwul loolu rek boo moytuwul mu wér day jafe waaw loolu nag incha allah kon ñoo ngi leen di ñaanal jàmm incha allah te dem baalu ak asalaamaaleykum wa rahmatullah